ndeysaan ci bisu Franc ak Bébé Saloum bu Djimbory ah cokkaas na Tony Tony cokkaas na ah ak fils de Sadio déedéet moo ñu wan moo waa eh, kay ñaari mbari kaw dana am e eh, tooni mi jàmbaar la e eh, tooni mi jàmbaar la toone jaw ngemo ngemul weex e jàmbaar la ah e jàmbaar la dana ko door mu daanu daan na tooni door na ko mu daanu ah e jàmbaar la dana ko door mu daanu daan na